ndax yomb na nga toog ku mel ni Viviane quand même bokk ci ñi nga xam ne encadré nañ ko si dernier contrat bi ma amoon file ci Paris ak Raxu loolu aussi noo ko dundee d'autant plus que am na ay détails yoo xam ne aussi euh, toppaat na la ci donte ni yàgg nañu di ko dégg wala baaxoo nañu di ko dégg ak ki nga xam ne mooy Boucher Ketchup. yan détail la. waaw li fa jotoon a xew xam nga ko coow li coow li bari la rek. lu ñu wax. ah mais Adamo Pawlish coow li yeneen ak yeneen Boucher Ketchup la du moom filmé na ko waru koo filmé ak demee. waaw filmé naa ko. waaw loolu man maa ko filmé ko. Mm-hmm. su ma neexoon dugal ko centaine de million de vues la may jox mais duma ko dugal damaa jël loolu jëlaale nuyoo bi fi ñuy juboowee waaye fi ñuy juboowee rek laa dugal. parce que loolu mooy sama rôle. d'accord boolee juboolee. Mhm. ñëpp wax nañ dugal vidéo yi dugalal dugalal dugal du ma ko dugal. parce que loolu dafa neexoon. Mhm. kii boobu seen affaire boobu. Mhm. dafa neexoon showbiz noonu la. Pawlish ak Adamo ay xarit lañu ay nit ñu baax lañ ay xale lañu. Hmm. dañuy dañuy dañuy yëngal di ruube mais tey seen xol yi boo ko xalee doo ci fekk lu bon. kon tey da ngay fexe seen image nga koy rafetal. Hmm. gis nga Pawlish bu ñu demee man rek la topp ma koy filmer parce que xam na ni fii la mburu mi di tàngee te fii lañ koy. te wax na ko aussi wax na ko yaa ngi koy <laughs> dégg. parce que Pawlish dama ko jël une heure de temps. Uh-huh. une de temps laa ko jël àdduna ku mosul woon dégg ci àdduna dégg ko te feeñ na seen buzz. feeñ na dakaar buzz feeñ na fépp. te nee na ma ñu dañ ne ko mosuñu laa gis. ngay wax. très bien xoolal loolu. d'accord te ñooñu xaw ma leen xamaanuñu ma. absolument mais kon moo tax samay plateforme dama mm. ko war a valoriser. d' accord ma ma tuuti rek ci sa diggante ak ki nga xam ne mooy Viviane parce que suivre naa la quand même en dehors li nga xamee ni euh, ngi koy def yooyu noonu sa complicité ak Viviane aussi euh, c' est en dehors de li nga xam ne mooy influence bi nga nekk di ko def wala. Viviane maa ngi soog a liggéey ak moom. ok Viviane ngi soog a nekk ak moom parce que Viviane daf ma gis rek moom it bëgg ma boppam Viviane moo yëkkati téléphone am woo ma. Pape Cheikh Diallo woo mm-hmm. Raxu woo ma. Birane woo ma ndax man nag fu ñu ma woowul duma fa dem. d'accord donc kon yow pour nga am artiste bi am accès ci yow moom moo lay soxla woo la bokkul moo lay woo d'accord man ku ma woowul fu ñu ma woowul ah fu ñu la nag nga dem fa lu la fa dala yaa fa teg sa bopp. man foo ma gis ci àdduna rek xamal ni on m'a appelé ay xaalis yépp nag fee la nekk man yëg-yëg. laa gën a soxla ci doomu aadama man artiste bu ma woo wax ma sa soxla mm-hmm. dama ci jàpp ba mu jeex tàkk dama ci def lu ma mën mm-hmm. ñoo ma woo dem ñu tegal jox ma nag cër jox ma cinq étoiles ma ne fa Viviane jox ma argent de poche boo xam ne ba tey maa ngi ciy lekk jeexul mm-hmm. ma pare mu jox ma xaalis boo xam ne xam naa ni moom waxuma la premier étage waaye d'accord dina egg deuxième. incha allahu rabbi ma koy ñaanal nag jàmm. Mm. ndax nit ku baax la ku am talent la ku mën a way la Viviane sans loolu yëpp mais Viviane dafa bëgg boppam. Viviane il est mature. Mm-hmm. il est gentil il est belle elle est charmante elle est lu neex. d'accord. il est tout daal. Viviane daal yàlla na yàlla defal ko jàmm daal ci bàcc si xat alors alors Boucher fi muy génnee ci loolu dafa am façon booy influencé boo xam ni Sénégalais yu bari jaaxal na leen c'est vrai que euh, xaw na am différence ak yeneen influenceurs yi ni la gisee ñu koy ñu koy faral di defee lu tax yow. Euh, je veux dire que nit ku valoriser image am d'une manière générale maanaam Boucher Ketchup sinabam duñ ci gis ku nekk lu tax loolu. waaw parce que du ma ci dugal ku nekk. Hmm. ndax koo ciy dugal moo tax man du ma dugal loo xam ne tey amul amul avantage du ma dugal loo xam ne amul continue hmm. du ma dugal loo xam ne amul. kon activité de marque rek ngay soxla. kese marque yi laay dug man parce que dafa am ñoo xam ne dañu ma encadré nekk samay nijaay nekk samay xarit nekk hmm. samay lépp. Hmm. ku ci mel ni Birane maa ngi koy nuyu Birane Ndour. Doura Balde Matar Diop Subatel. Pape Diouf Ismaïla Bass Badara Gadiaga. d'accord mais ñooñu dañu nekk sama ginnaaw. di ma jàppale parce que ñooñu dañu may teg ci code dañu may dimbali. Mhm. dañu may wan nan laay amee. Mhm. moo tax ay marques yu am doole rek laay dugal. loolu aussi bëggoon naa si ñëw bouger sa façon marketing ba nga xamee ni macha allah daanaka mën nañu wax ni ay sociétés yu am doole rek ngay am ak euh, xëy na ay contrat publicitaire ak yu demee noonu loolu aussi lan moo ko la ko may relation la wala comme ni ko gars yi waxee relation gars yi nii sama nit ñi ñu naan ñoom laay topp. te nit ki nag booy topp da ngay topp ku la amal njëriñ mais ñoom dañu maa amal njëriñ ci côté boobu. déggoo ma xanaa nga yow contrat yi may gis nii xëy na nga koy dugal. moom laa lay wax barki démb laa signé 30 millions ak sunu bett ñu jox ma vingt mu jot dix loolu duma dem am fu ma ko def lundi laa war a dem jëli xaalis NMA 17 million NMA Sanders kan la du ñoom CO e ñaata lañ ma fay. 10 millions. te ñooñu photo rek ngay dugal doo ci wax ba dee man maa jékki-jékki yenn saa yi bëgg a wax. d'accord ah. Mhm. barki barkaati démb lan la ma Matar Diop suba teel def yóbbu ma Lonase ñu signé ma jox ma ñaata. sunu bet kan la du Birane ak Doura. Sewo kan la du mm. Pape Diouf mi. Matar du Lonase ah. yi may am ni yu sew yi kan la du ñoom Ismaïla Bass ñoom Batara Gajaga mais ñooñu loolu laa leen di doyee parce que ñooñu ñoo may xelal pour ma am. lu tax mu yomb nga mujjee fee ñaw macha allah yaa ngi woon ci làmb ci pare fa dem États-Unis Modou Modou yi nga ñëw rek toog ñëw ci influenceur ak doole boo xam ne ñëpp gis nañ ko. waaw parce que li nekk sama ginnaaw la. d'accord ñu bëggal ma seen bopp. am fu ñu ma teg. respecté ma jox ma cër ma mm. fësal leen. Mm. dëggu ci ñoom dëggu bi ma dëggu ci ñoom moo tax. yenn saa nga dégg ñu naan sax buuse ñii da leen topp ngir alal di leen dañu ñaan di leen ñuy dunguru ñu leen di jox. déedéet ñooñu xamuñu sama soxla. waaye nag dañ may woo rakk ji foo ne demal bërëb sàngam nga siñe lii léegi léegi léegi hmm. léegi nga siñe ko ñëw di leen jox xaalis bi ñu ne la demal yaa ko moom. d'accord loolu laa sekk ak ñoom. samay mag lañu samay xarit lañu. Hmm. loolu laay ànd ak ñoom. maam ménagère nag. Hmm. boo mat ménagère Matar Diop suba teel du jël xaalis moom moom loo ko jox du ko jël. moom dalay wutal contrat ba pare ne la bëgguma ci dara. mais Ibrahima Cissé mooy jël. Matar mooy ménagère international bi. mais Ibrahima Cissé Sénégal fii lu fi waay soxla moom ngay woo. d'accord c'est lui qui décide. Mm-hmm. moom maay moom day jël. moo tax contrat yu bari. dama koy bagager ci Matar. ndax du jël waaye Ibrahima Cissé day jël pourcentage. Mhm. loolu moo tax nag Cissé. d' accord wàññi sa loxo ndax xam naa euh, contrat mujj bi li nga ci jël daa bari trop. très bien <laughs> Boucher Ketchup euh, premier euh, lutteur influenceur moom la seen bés di am. c'est vrai ñu bari ci say fans yi nga xamee ni xëy na ñoom mënuñu distinguer xëy na ni Pape Diouf dafa nekk ci yoonam Wally nekk ci yoonam bi nga génnee wax ni benn album moo am ci Sénégal ñu bari mere nañ la ci lan ngay leeralee kàddu yooyu nga xam ne aussi pour dire vrai am na ñoo xam ne mais bu leen neexul ñoom la rek benn album moo am di benn album la ni ñi di déglu di man benn album laay déglu. Hmm. Sénégal njaay yëpp benn album la ñuy déglu man album fi amaat écouter rek moo fi ne. li Pape Diouf hmm. moom rek la nit ñi di déglu. nee yow moom ngay déglu rek. pour ñëpp moom la ñuy Sénégal njaay ku la xolal ñi nga xam ne yaakaaroon ni moom la ñuy déglu may tëju seen néeg di ko déglu ndax bañ ko leen mere Pape Diouf moo yeete moom moo way lu neex moom la nit ñi di déglu. Hmm. mais quel est le Pape Diouf génnee Wally génnee album Pape Diouf moo génnee gisuma beneen man Pape Diouf laa gis ni moo génnee album. d'accord Pape Diouf c'est le de des du moroomu kenn. Mhm. ku bëgg a jàng waay da ngay ñëw toog ci keppaaram respecté ko jox ko cër pour mën a waay. ay waay Pape Diouf a koy def. d'accord xam nga Youssou Ndour moom c'est or kooku moom génne nañ ko ci affaire yi def mhm. nekkul ci yëpp moom maa ca waaw kooku moom c'est le roi de la musique sénégalaise roi roi roi kooku waxutumay waxam mais ay laa la wax fii. Mhm. Youssou Ndour nga génnee ko ci Pape Diouf a ko fiy def moom la nit ñi di déglu mu neex leen mu naqari leen wax ji nag mën naa bari coow li bari ñun mënee wuñu wax dañuy jëf. Hmm. wax ji baree Pape Diouf moo ñëw génnee écouter muy lakk dëkk bi ñi mu neex di kontaan ñi mu neexul seen xol di lakk. loolu rek la d'accord alors ñu bari bu ñuy dégg ngay wax ci Pape Diouf vraiment dañuy jàpp ni dafa am benn réglement de compte boo xam ni dafa am ci diggante Boucher Ketchup ak ki nga xam ni mooy Wally Seck loolu lan nga ma leer la non man awma benn problème ak benn artiste. si parce que Boucher nga baal ma man damay gis ñaaxarañ loo dem di Sinap Pape Diouf par exemple lu tax yow liberté boobu mënoo ko am aussi. liberté ci xam ne nee nga amu amu leen parce que man munuma loolu man ñarala laa munul. man je suis fier qui je suis sama téléphone bii Pape Diouf la gëm Pape Diouf lay déglu Pape Diouf lay jël moom laay jël. yeneen artistes yi may jël ñëpp c'est des relations yoo xam ni. Mhm. bëgg nañ Pape Diouf respecté nañ ko am na fu ñu ko teg doo dégg mukk ñu ne Pape Diouf diwa nga koy diir mbagg wala diwa nga koy diir mbàgg moo tax artistes yooyu je suis préféré pour di leen jàppale mais man. Pape mhm. Diouf boo ko tegul fenn fii aw ma aw ma ci soxla ba ci influenceur bi nga nekk Sénégal yëpp bokk la. non Sénégal yëpp ñoo ma bokk. waaye ah. ku may bokk dafa am fu mu xam ni côté boo xam ni 15 pour cent la du ko filmé loolu kañ man ngarala laa mënul ngarale ay ngarale yi ngara mënu ko. ba dem soirée sax. boo boo boo filmé wul par exemple dem ci soirée Wally Seck mënoo ko. waaye way bay mooy man Pape Diouf lay ay wayu Pape Diouf moo chronique ci wayu góor. Mm. à part Youssou ay wayu Pape Diouf moo chronique sama nopp bi ba su may déglu beneen way day métti samay nopp. d'accord. loolu moo tax nag man damaa bëgg sama santé nag. très bien Boucher Ketchup ñu bari tamit ñu ngi lay jam baaraamu tuuma ni bi nga jógee bitim réew ba léegi ñaw daal dafa ñàkk du ñàkk nguur gi fi nekk dalaa jël compal la nga noppi ba ngay nekk bitim réew c'est vrai que ñi lay suivre gis nañ la ba ngay nekk États-Unis dafa bari loo doon dénoncer quand même ci doxalinu dëkk beeg tolluwaayam léegi loolu amatul ci yow lu ko waral. man xam xanaa nguur gi su may compal maa ngi ubbi sama làmmiñ di wax. wala may kii man meluma noonu. lu tax nga noppi. dinaa la ko wax. ok musuma ci woon bëgg a wax. Mhm. fan yee Adamo def na vidéo naan buuse waxal ci dëkk bi keneen ak keneen sama snap bi. Mhm. buuse waxal ci dëkk bi buuse lu tax waxatoo ci dëkk bi dinaa leen wax lu tax waxatuma ci dëkk bi dëkk bi neexut a waxee. Mhm. da ngay wax te yàlla tax chaque jour dama doon wax mais gis nga réew boo ci nekkee. yenn saa yi nga juum yenn saa yi nga wa nga bañ a juum. mais gis nga ñi naan la waxal. Mhm. ngay wax bis boo waxee état jàpp la xamal lañ mën ci yow. Mhm. firi firi buuse yaa ngi dégg. lay dañ lay waxloo ba nga wax. Mhm. ñu jàpp la ñu naan firi bu say commentaire moom yaa fi ne yaa fi ne. kenn du yow. barki Serigne Bamba buuse ñii yaa gëm sa réew yaa lii. état fekk la nga toog jàppale ñu naan firi. Mhm. kenn du la fekk ci kaso ba firi firi firi firi. état du la déglu de firi. Mhm. ñu jugé la firi nga ne fa firi sonal la firi loolu lañ ci man ay estati firi te estati firi justice du ko xool kenn du ko xool. mais lu tax nga ko doon def fi nga. waaw taxawal rek firi waaw taxawal. firi. Mhm. léegi nga dawal li nga war a dawal ñu tëj la ko bañ bàyyi la. nga wax loo juumee. ñooñu doon la wax firi at naan buusa yaa fi ne. ñoo ñooy jàppaat di saaka sa ndey est-ce que yaa may dégg. Mm-hmm. ñi la doon wax waxal ba nga wax ñu jàpp la mënuñu laa génnee naan la firi nga am leneen loo wax ci dëkk bi loo xam da ngaa juum ñooñu ñooy wëldeeku wax di saaka sa ndey. ok duñ la ko muñal léegi balaa taag dangay noppi seetaan ni ñëpp kuddu jàmm la laaj. waaye réew mi kenn bugg fi ay kenn bugg fi lenn lu metti yaa ngi dégg. kenn buggu fi fit na waaye nag nit ki bu la nekkalee ci kër gi da nga koy nekkal ci naaj bi. Mm-hmm. mais sénégalais yi ngay nekkal ci ker gi suba ñu def la loo xam ni doo xam nu mu demee. d'accord suba ngay wax ba juum ñu lay saaga ay. kon daal bi nga nekkee États-Unis nga amoon fit pour wax. non bi ma nekkee États-Unis dama doon wax chaque jour. waaw di wax chaque jour. di mm-hmm. wax yaa ngi dégg. Mm-hmm. mais da ngay wax benn wax imaginer man lan moo tax nit. waa léegi man lan laa def ci dëkk bi loo xam ne yenn saa ma dugal vidéo ñu saaga ma ndey lan laa def wax ma. yenn saay yi ma dugal vidéo su commentaire di ma saaga ndey. te man defuma leen dara. lan moo tax ñu may saaga parce que Pape Diouf laa àndal. lan moo tax ñu may saaga parce que Balla Gaye laa àndal. lan moo tax ñu may saaga. parce que maa ngi dem tukki di ñëw. sama commentaire yenn saa yi ñun ma dugal sama passeport bi ñu naan xool ko muy nangam ndeyam di dugal passeport te ñun ñu ne fii di sonn ku leen ko teg yàlla man man maa ko moom yàlla moo ma ko jox mais lan laa leen def bañ may saaga sama passeport aw ma droit wane ko. mais léegi ñooñu léegi nan nga leen di waxalee. koo xam ni yow boo ko waxalee tey lu baax suba mu dalay tagg ci lii suba nga wax ci fee mu saaga la day mm-hmm. naan gëmul dara ak yooyu léegi lan la doo noppi. Mm-hmm. nekk sa jàmm. Mm-hmm. ah. ñu nekk la demee. très alors fi may jeexalee sa digganteeg yenn wala ñu bari ci influenceurs yi nga xam ne ñu ngi fii ndax am na lu ngeen di waaj a tënk loo xam ne xëy na dina gën a mën a vraiment dina leen gën a mën a jàppale pour gën a valoriser li nga xam ne mooy influence rawatina ci ci réew mi. non fii bopp sa bopp la ku wóolu sa bopp daal bokkal ci guerre bi rek bokkal ci kii bi rek. Mm. pax bi. fii daal benn teen la. Mm-hmm. ñun ñëpp ci ne. joow bi génnee nañ ko nañ rayante ku rayante ba génn rek rëcc nga. ku rent mais man moom am naa benn influenceur boo xam ne je l'estime hmm. te incha allahu rabbi bu neexee yàlla Sénégal a ngi may seetaan. Hmm. dina egg fu sori ndax dinaa ko jàppale. kan la. muy El Pocho. ah El Pocho. wax ci nit. waay El Pocho je l'estime. Hmm. man Ketchup dinaa ko jàppale. dina signé ko ay contrat. dina am xaalis. est-ce que du da nga koy jàppale pour bëgg am xëy na adversaire boo xam ni moom nga gën a moom nga ko bëgg a. xeexee non non El Pocho su ma ko defee ba pare bu mu mais xam nga lu tax. Hmm. yaru na diñ na am na ay valeur ba pare respecté na boppam. d'accord ba pare ñeme na liggéey. très bien. incha allahu rabi. d'accord lépp lu ma mën ci El Pocho. Hmm. dinaa ko def ci moom. Hmm. te du yàgg dara nii nii du yàgg dara. d'accord dinaa ko jox contrat boo xam ne. ci weeru koor gi pour xeex ñaaxarañ la alors. non man xeexuma kenn. ñëpp jàpp nañu ni concurrence bu métti la sa diggante ak moom aussi. non non non non amuñu concurrence ah. amuñu concurrence. amuñu relation aussi. non relation kañ am nañ ko. d'accord am nañ relation. mais léegi dëkk bi moo toll foo xam ne ku ci nekk rek. Hmm. sa bopp ngay lijjanti te boo lijjantiwul sa bopp rek ñu raw la. waaw moo tax El Pocho incha allah rabi. dinaa ko jàppale. te incha balaa koor gi dinaa ko signéloo contrat boo xam ne dina ci gis boppam bu baax a baax. incha allah mhm. fi may jeexalee fi may jeexalee dañuy gërëm bu baax a baax bébé Bass ndax ñu ngi la fekk fi nga xam ne mooy kër euh, Pape Diouf. moom it ñëpp xam nañ sa diggante ak moom. mënul ñàkk aussi rédaction Senbuzz jaajëfal ko bu baax a baax madame Diouf bébé Bass ci dalal beeg euh, disponibilité bi ak teraanga bi nga xam ne aussi def na ko fi looy tëjee ci moom mooy way nit ñi déglu ko. Mhm. mooy way nit ñi cons ko mooy way lu nit ñi dégg. d'accord Pape day way mu leer naññ nit ñi xam lu muy wax. mun wul deful lenn loo xam nit nañ ko ci kii. day way. très bien nga. mais léegi nag booy déglu ku mel noonu leneen doo la saf. xam nga. Mhm. waaw da ngay chronique. c'est pour cela je suis chronique sur Pape Diouf. d'accord amoon nañu yow jotaay temps bi moom a xaw a kii tuuti. waaw maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu nag. Euh, papa Youssou Ndour bu baax. Mm-hmm. di ko ñaanal jàmm. di ko sant di ko gërëm di ñaanal doomam Birane Ndour Matar Diop suba teel maa ngi lay nuyu bu baax Badara Gadiaga maa ngi koy nuyu. laat Diop DG Lonase maa ngi koy nuyu Lat Diop nit ku baax yàlla la yàlla defal jàmm yàlla defal la tew féex yàlla may la wér yàlla guddal sa fan Lat Diop social lay def congaan mm-hmm. politique mais dañuy wax dëgg gis nga kii di Lat Diop. Mm. kii di Moustapha Diop. gis nga ñooñ dañ leen war a jàppale parce que dañuy def social dañuy jàppale doomu adama yi. Hmm. Lat Diop nag moom mention spéciale. Ah. du yu kenn Lat Diop mi ngi ci lalu hôpital yi mi ngi ci euh, ambulance yi mi ci lépp. Hmm. dañ koy ñaanal yàlla guddal fanam. ba pare mu liggéey liggéey am solo aussi ci chiffre d'affaires bu LONASE aussi. waaw gis nga Lat Diop yëkkati LONASE LONASE bu njëkk boo fa demee tapi yi dangay ngay jékki-jékki gis ay mbóot ñuy génn. Lonase. Mm-hmm. cantine yi moom day totaanos boo di wéeroo di carte rek di bëgg def kii bi pémi mm-hmm. da ngay totaanos moom bu lay dag ngay dee. mais léegi ay cantine cantine yu am ay climatiseur mm-hmm. cantine yu am ay. ay ay ay beñe ay jus ay banana da ngay toog di di liggéey mel ni yaa ngi sa bureau. am na solo kon kooku dañu koy sant bu baax. c'est à daal. Lat Diop ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax. a Sen Buzz di ko jaajëfal bu baax a baax bu Cheikh Thiam la woon di leen jaajëfal bi très prochainement sur la ak beneen jotaay fi amaani mm-hmm.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 96 96. àndalaburi mooy saafara sa yaram.